seen bopp donc am nañ confiance suñu président di ñaan yàlla yàlla eggali ko parce que xam nañ ne bu eggali ko jigéen ñi dinañ noppaliku benn coono duñu ko am ku feebar di nga faju suñuy doom dinañ jàng merci beaucoup Ndata Yàlla ne fi Aline Sitoé Diatta ne fi eh, Thierno Souleymane Bal ne fi ñooñu ñëpp ñu war a leen tuddee suñuy yoon tuddee leen suñuy place publique ñu continuer di am complexe ba fii Ndar wala soo demee dakaar foo tudd la ñu ne la fii Pompidou fii Jean joures fii nangam nangam loolu dafa war a jeex senegal parce que soo ko xoolee ni day mel ni du dara mais lu am solo la. parce que culture moy société Si la dominer culturellement dominer la ci la des yépp ki histoire ci yow ba fa ay mandarga bis bo tuddé mandarga ci ci yow sa ci suñu programme ñun li nga xamné ne volet réconcilier nos identités wax il faut que ñu lépp loo xam ne dañ ko war a màndargal muy suñu fierte dañ ko tuddee suñuy référence su réew neew ñu duñu tuddee keneen de ndax mun nañ tuddee Mandela mun nañ tuddee Sankara mun nañ tuddee waaye la ca ëpp mooy nañu tuddee suñuy référence ñun fii ñaareel bi mooy nañu fexe ba dugal ci suñu njàngale suñuy doom ñu teel leen di jàngal ak suñuy kàllaama réew yi ñuy làkk fii parce que gis nga sooy sooy jàng ci kàllaama jàmbur nee nañu langue bu ne day véhiculer une culture en même temps boole koog temps bi nga xam ne xale bi dina ko def balaa muy comprendre làkk boobu bu duggee CI war a jàng ba fer ij ba war a jàng ba mun wax nag ci euh, ci langue boobu lii mooy fas lii mooy garab te xale boobu bi mu commencé nàmp ba fer ba commencé wax xam lu ñuy waxee ci olof wala ci joola wala ci mankañ xam na lu ñuy waxee fas xam lu ñuy waxee golo xam na lu ñuy compter kon kooku soo ko jàngaloon ci loolu jàng mi dina gaaw dem nañu get ndar jóge fa ñëw fii dem nañu ba goxu mbàcc fa ndar fa dem xaar kon wër nañu ndar yépp ba xool problème yi dem nañu ba ci brèche ba sax kon xam nañu problème mu ndar xam nañu problème mu napp gi xam nañu problème mu brèche bi xam nañu problème mu mbay mi xam nañu problème mu chômage des jeunes lépp xam nañ ko dafa fekk nag jamono campagne électorale la ñu nekk campagne électorale dafa métti da nga war a wër Sénégal def 45 départements ci 20 jours yàlla def yàlla xam na ni sax sept départements supprimé nañ leen ci suñu tournée bi te du lu ñu parce que suñu sañoon fépp dañ fa teg suñu tànk kon suñu ñëwee li ëpp solo message bi ñuy délivrer ak li ñuy nous yéen te muy luy law ci parce que presse est ngi nii taxaw réseaux sociaux yaa ngi fi la ñuy wax fii am na koy seetaan jamono ji ñuy direct loolu moo ci saa suñu ñëwee fi ñu war a dem yépp ndar dañ fa dem te nañ toog ak gars déglu leen te xam naa ni lañ ñuy jàmbat il y a mois bu ñu toogaatoon tey même chose lañ ñuy jàmbalaat te xam nañ ko ma door ci mbirum napp gi d'abord xam nga mbirum napp gi senegal problème yi niñ koy posé moo ko sama mbokk mool yi gannaaw bu ma leen sargale parce que jàmbaar lañu jàmbaar lañu te ñoom rek mënoon nañu am lu bëri lu ñu régler ci problème Sénégal ndax la pêche rien que lu ñu xayma rek am na 600000 emplois yoo xam ne pêche moo ko créer kon kooku li mu créé ci Sénégal bëri na mais problème mu pêche niñ koy posé. yenn saa yi sax dama naan responsabilité c'est partagé parce que bi ma fi ñëwee ci campagne législative dem naa dem naa Guet Ndar guddi lañ fi dugg si pratiquement mënuñu woon wër Ndar mais dem nañu Guet Ndar jóge foofu dem goxu mbàcc dama ne ni ñuy naxee nit ñi naan leen andi nañu ay moteur hors-bord financé nañ ko ak yeneen ak yeneen du loolu mooy principal problème mu napp gi. parce que dama ne yéen nappkat yi bu ñu leen joxoon ay gaal yoo xam ne day naaw sax te bu ngeen duggee ci géej gi du ngeen fa fekk jën amul njëriñ loolu mooy premier problème bi. premier problème bi mooy suñu géej gi ñu jaay ak seen i accord de pêche ak ni ñuy wax la pêche illicite non réglementée nit ñi ñëw yor seen i usine. yor seen mbaal yu bon daal di jël suñu jënu géej gi yépp ba nga xam ne tey suñuy nappkat dañuy obligé di di dem feneen ñu leen fay tëj kaso wala ñu leen di door ay fetal premier problème bu ñuy réglé boobu la moo tax ñun ci suñu programme ñàkk xam-xam rek li ñu njëkk wax suñu programme mooy bu dee wool nañ ñu ba dénkuñu réew mi dootuñu nangu ay accord de pêche suñu programme ci pêche mooy diggante fii ñu nekk muy côte bi ba li ñuy wax douze miles dootuñu nangu benn bateau napp fa lu dul suñu bateau Sénégal yi lu dul suñu bu ñu tànnee lool nag lii ma tudd yépp xam ngeen dama boole ci discours bi di wax loo xam ne lu national la lu international de temps en temps mu tibb loo xam ne lu local la ndar la conserné te ñaar yooyu nag dañoo lënkaloo. parce que li tax situation Sénégal mel nii mooy situation bi ñu am suñu digganteeg ñeneen ak ñeneen moo doxul ni mu war a doxee ba loolu mooy dellu si ñun mooy liy tegu suñu ndodd bu ñu wóoloo nag bu ngeen wóoloo Ousmane Sonko yéen yéen taxu leen ma wax de yéen wóolu ngeen ma ndax moo tax ngeen toog fii waaye sénégalais yëpp lay waxal sénégalais yépp laay boole waxal dama ne le bu senegal wóoloo ba tànn usmaan Sonko suñu premier combat mooy lii suñuy alal te yàlla xam na ni lépp am nañ ko ci alal fii. liggaay gaay naan ñaat nu mag ñi nangu na réew mu am or am pétrole am zircon am phosphate nga dellu si ñu ne la am nga géej gu nangu am nga suuf soo xam ne loo bay mu sax. ñu ne la am nga naaj mun a def énergie éolienne am nga ngelaw mun a def énergie mooy solaire am ngelaw mun a def énergie éolienne am ay une jeunesse vigoureuse saine une jeunesse qui veut travailler réew moomu lan la la yàlla deseel leen rek a manqué woon ay njiit yu baax gis nga président Kagame 1993 Rwanda ñi ngi doon reyante 2018 Rwanda moy le premier pays africain en termes de croissance lolu njiit gu bax mo koy def kon jeu 2000 2019 bi moy bu len topato folli bi de folli folli bi mom amna ba nopi Macky Sall mom man gëm na ni deuxième tour su doon am sax diggante ñaari opposant lay doon waye mom du ci bok kon xam nga lan mo wara doon seen fal cette fois-ci nu ñuy def ba fal un bon président qui va changer définitivement ce pays lool mo fi des. la ko mëna a may nag mooy ñu ci ci valeur yi ma waxoon jiital valeurs yooyu ci ni ñuy tanné ba paré nak élection bi kenn ku ne ci ñun nañu jaral lu bëri nañu génn massivement dem voter parce que li ñuy wax pour décourager sénégalais yi di gëmloo nit ñi ni élection bi Macky Sall gagné na ko ba pare wala sàcc nañ ko ba pare dama leen ne c'est pas vrai gis nga émission émi euh, élection Macky Sall su ko gagné woon ba pare du daj lii muy daj ci campagne bi léegi sax gis naa ko muy dawantu naan day daw. xam nga mag mu jaaxle moom xam nga soose yi sama mbokku soose dañu ne allahu ak boo dégg bul jàpp ni allahu akbar boo dégg bu ne rek nit buy kàbbat di julli la léeg-léeg nit ne ci biir nga ne ci biti nga dégg mu ne allahu akbar jaaxle kese la kon daw yu bëri yeeg fecc yu bëri yeeg taasuy parce que ci ay valeur la ñu war a tànnee nit su dee tànn rek moo tax ñuy wax su dee dañuy tànn su dee folliwuñu dañuy fol parce que ne nañu Sénégalais yi mënuñu fal waaye folli lañu ñu mën folli nag baax na torop koo wóolu dénk ko deful lu mu war a def wala deful ni mu ko war a defee folli day doon farata wala folli folli day doon sunna sax ci jamono ji waaye nag fal moom farata lay doon parce que soo ko follee te sàggan ba tànnoo ci anam yu baax ba teg ci ku mel ni moom wala ku ko yées boo moytul di nga waat say loxo di jooy te juróomi at dafa gudd ci ab réew moo tax jamono nag fal lañu toll valeur yooyu ma tudd léegi ci ndar muy valeuru diine ak jikko ju rafet moom rek la ñu war a séenu nag ci ko war yor réew mi ba tax nag suñ ko càmbaree ci lu gàtt rek tey suñ doon seet ku mel ni Macky Sall xam nga moom xam nga moom mom dafa di symbole par excellence et par essence mom dafa di symbole contre valeur yi nga xamné mom lañu ndax kilifa go xamné lu mu wax mu dañ lu mu du def koku bokul ak valeur yi ma tuddu légui té valeur yi wara suñu xam nga la tok né sénégalais lay bi mu koy def kenn sexalu ko lem kenn tegul fetal ci bopp bi moom moo ñëw diggante deux yi ne su ngeen ma falee donte mandat bi sept la man engage wu naa def ko juróomi at senegale yi wóolu ko fal ko mu waxaat ko waxaat ko dem ba Paris taxaw perron Élysée waxaat ko fa ba président France di ko tagg naan lii ñu ngi koy doo gis waxuma la Afrique waaye àdduna bi yëpp mu dellusiwaat siwaat génnaat ci ba set wicc kon kooku li muy woon suñuy doom ak suñuy sët mooy nit mun nga wax waxeet mun nga joxe bopp rocci làmmiñ te loolu du suñuy valeur ñun koo xam ne taxaw na ci kanamu sénégalais yépp ne bu ngeen ma fale wala sax mu déclaré ne man sama rakk duma mës a jël sama big signé décret bu koy fal dara yéen ñëpp ngeen dégg ko mu wëlbatikuwaat ñëw jël bigam signé décret fal Aliou Sall jox ko keese de dépôt consignation loolu contre valeur la koo xam ne koo xam ne lañ ko dénk ci réew mi muy suñu sañ-sañ ak suñu mën-mën ne ko tegal réew mi ci yoon defar réew mi ba sénégalais bu nekk di jot ci àqam nga jël loolu wëlbati ko jël des contre-valeurs wala jël li nga xam ne moom lañ la dénkoon di ko utiliser comme moyen di xeex say adversaire politique ñii nga tëj leen ñi nga génne leen réew mi te tegoo ko lu dul sa obsession pour un second mandat kooku ay contre-valeur lay woon réew mi waaye koo xam ne waaye koo xam ne fu ne dugg nga ko ci Sénégal digge fa fii ñëw na fi conseil des ministres décentralisé bi mu ñëwee ñaata la diggoon waa Ndar 300 milliards est-ce que waa Ndar gis nañ 300 milliards yooyu. ñëw na fii ñëw na fii dem Pikine daal leen fay dig hôpital est-ce que waa Pikine gis nañu hôpital ba. kon koo xam ne su waxee mu dañ bu diggee du def. kooku ay contre valeur kese la woon sénégalais moo tax mérité wul un second mandat des sénégalais